jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal ñun ñépp xam nañu ne jullit dëgg-dëgg boo xam ne ma nga kuk njullitam téye ko mooy ko lenn rek mooy doon yitteem ci lay xëy di ci gont buy nelaw nelaw waaye bu yeewu waatee ci lay wéy muy dajeeg ngërëmul suñu boroom ngërëmul suñu boroom nag kon day mel ne dunduk jullit bi fu ab jullit mën a jaar dafa jaari rek waaye la ko tax a jóg mooy am ngërëmul suñu boroom yàlla na ko yàlla defal ndax kat am ngërëmul suñu boroom mooy tax nit noppalu fii bu àllaaxira mu raw yàlla na ko yàlla jàppandalal suy wut kon ngërëmul suñu boroom mi ngi wan gannaaw merom suñu boroom kon kenn ku nekk war naa laaj boppam léeg-léeg nu muy xame ba xam yàlla ubbi na buntu mere ko wala déet yàlnuñ ci yàlla musal waaye war naa seet ci boppam it laaj ba xam moom ndax mi ngi ci yoon wu jëm ci ngërëmul yàlla wala déet kon nu ñuy fexee ba xam ba xam nun noo ngi ci li yàlla bëgg te ci la ñuy amee ngërëmam waaw wala déet wala boog nu ñuy xame ne nun ñoo ngi ci yoon wi jëm ci merloo sunu borom yàlla ñu ci yàlla musal kon ab jullit dëgg-dëgg yàlla wax na ak moom leeralal ko ba mu leer nañ yoon wi nga xam ne ci lay mën a amee ngërëmam waaye it leeralal na ko ba mu leer nañ yoon wi nga xam ne bu ci jaaree taseeg meram yàlla ñu ci yàlla musal kon war nay xëy saa su nekk ci luy gërëmloo borom bi di moytu saa su nekk luy tax borom bi jëfandikoo meram ci kawam ndax mbindeef mi yàlla jëkk wan kàttanam te kàttan ñaari li koy génn li koy génne mer ca lay bokk kuñ gis mu génne gànnaay rek fees na dell amatut mel ni pexe fekku ca yàlla nag moom coobareem lay jëfe waaye ci suñu dégg ki yàlla jëkka wan ne ko li nga def jar na mer te kooka fam jaar ba tajeeg merum suñu borom mooy daa mooy ndigalam daa mooy ndigalam ku nekkutoon ci ndigalam kenn du ne ci ndigalul yàlla bay taseeg meram kooku moo tudd iblis iblis lu mu def moo yàlla daa bind aadama alayhi salaam digal malaayika yi ne leen usjudu li aadama wa id qulna lil malaayikati usjudu li aadama fa sajadu ñoom ñëpp illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkafirin ba ko yàlla ne lu tax nga bañ lay wam lay ku ku ko njabootam wax jar na mer def leen nangam xëy leen liggéey am ku ne wat ba jant bi ne dang munta ta nelaw ndax naaj wu tàng bi mu génn boroom njaboot go ne ko looloo tee xëy mu ne duma seen moroom bay xëyandoog ñoom waaw bu teel a xëy dee am ñoom ñoo ko war a def man damaa war a nelaw ba doyal damaa war ne wat ba mu sopp ma ma jóg dox ndànk dem loolu moom ku ko jàppee ku jàpp ne boroom kër mérite it jar na meer ginnaaw sab reer la reere biig di yaakaar sa ndékki tey ak sab añ ak sa reer bu guddee waaye li ko ko teg mooy rëy rëylu ba mu ko ne loo tee sujjóot dane ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu xalaqtani xalaqtahu min min xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin am na riwaayaat yu wax ne min naar jooju min nuur la bëggoon a wax am lu wëlbati aw làmmiñam kon ëllëg ki si biir lu jóge ci mbir rek ci mbir lay delluwaat kama ba kama badaakum taawudun minha xalaqnakum wa fiihaa nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxraa waaye fam naa demee sawara daf ne xalaqtani min naar te bëggoon a wax min nuur yàlla nañu yàlla musal ci merum suñu borom kon foofu lam fa jàpp mooy moo ko gën ndax bokkuñu fuñ jaar ba leen yàlla di bind kon bañ bañ a jëfe ndigal rawati ndigalul suñu borom taxoon na suñu borom jëfandikoo lu lu mel ni mer ci jaam boobu yàlla santoon mu bañ muy iblis kon boobu na fa teg ndigal yi ndigal yi day indi merom suñu borom am na ñeneen ñoo xam ne mer ma yàlla wane ci ñoom jëfandikoo ko ci ñoom ñii mu soppi leen ay nopp sa jaboot ñii mu soppi leen ay mbaam xuux leneen ko tegoon mooy dañ doon jaamu yàlla mel ni mi ñu war a jaamu ba yàgg mbewte dikkal leen ñun daal kuy jaamu da ngay jaamu da ngay jaamu looy gis wala nga di ko dégg daal defar seen yàlla bopp ndekete foofu mooy yoon wa gën a yées far ndax suñu maam Ibrahima bi muy waar waa réew ma tàmbale ko ci way juram daf ko ne yaa abati lima taabudu ma la yasmau wala yubsiru wala yugni anka shay'a nus di jaamoo loo xam ne tey bu dee yaa ko tabax muy ban buy taw munta daw fale ko ndox may fekk seeyal ko mu dem kooku nu xelum nit di daje di ko jaam bu dee bant la bu ñu yat bu sa war a wee ñëw day tàkk ànd ak moom dootoo xàmmee moom ak leneen kooku yot nu xelum nit di nangoo ñu di ko jaam li ma taabudu maa la yasma loo xam du dégg su ko woto juboon di ko korne bañ a dal ci kawam it mënta daw du ko dégg ndax du ko dégg du ko gis kon kooku mënul du kenn daal waaye ñu te ticc moo tax suñu boroom ne yow yonent bi aleyka salaatu wassalaam yeel mbooloo mi la daloon gaaya ñoom daal buñ ko tuddi wut maroon suñu boroom it yàlla da leen a bàyyeeg aw gaayam mu jëflanteeg ñoom ñii ñu soppi leen ay nopp sa jaboot dutuñ sangu wala bu ñuy sangu dañuy dugg ci ndox mi génn rek waaye mënatuñoo wat seen kawar mënatuñoo wat seen sikkim mënatuñoo def lii mënatuñoo def laa di yéeg ci garab yaa ko wàcc li leen topp leen di dàq di leen dàq ñu ñu së ñu sax ci seen wex saa su nekk ñu ngi ci tiitaange rabi àll yi saa su ne ñu ngi ci tiitaange kañ ku leen di yoot ak ku leen di waaj a jàpp moo xam muy dox ci suuf wala luy daw ci kaw loolu doy na fit na sëkk qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghuta ula'ika sharrun makanan wa adallu 'an sawaa'is moo tax bu nit laajee ndax yàlla ndax moom mi ngi jaar ci yoon bu ko yàlla di meree waaw wala déet bu gis bu ca gisul boppam it war naa xool moroomi jaamam ku ca jaar yoon woowa yàlla ne nii la mu fetteer lu lànk buñ téewul loxoom it musiba may ñëw doonte di soppiwaate golo ak i golo sax bëgguma koon tudd waaye noppi si jaboot di soppiliwaate noppi si jaboot wala mbaam xuux gëjës na ko dégg waaye fitna yi ko fi wóotu ñoo yees fuuf soppiliku noppi si jaboot wala mbaam xuux ndax bokk yi léeg-léeg ñu gis ñu teg seen tànk ci mooy ndigal yi kenn ku nekk ne yoonam nekku ca ginnaaw njabootam bokku ca rek moom yoonam nekku ca te fekk la koy dal bu koy dal ginnaaw mook ñun ñoo fi bokk nekk ci kaw suuf si ñun mën nañ caa bañ a mucc mën nañ caa bañ a mucc am na léebu wu siiw woo xam ne diggante ak màggat la daloon ak lu nekkoon ca biir néegam di kër kër yi ak i moroomam ñu ne màggat ma doo ci wax mu ne ñoom ñaar ñii bokkuñu aw xeet maag ñoom bokkuñu ni ñu yàlla binde seenub xeex lu ci sama yoon ñu ne kon baax na ginnaaw ci sab néeg lañ nekk te sa yoon néewu ci ay ca ñuy xeex ba ne daw ci digg gaal bi gaal bi nga xam ne moom lañ doon taal wadd ca bànqnoos ba ne daw ci digg taal bi ak gëlit wadd dal ci pajaas ba néeg ba dënnu tàkk daanaka ci kaw soxna sax màggat ma laata ñu koy wàllu fekk lay am am na ba noppi kon musiba ma dal ñoo ñee doon kalti kalti mu maandu ca ne sama yoon nekku ci ndax bokku ñëw xeet tàmbali naa gis la muy wàññi seen tooñ nga ñoom ñaar gis nañ lam tàmbalee wàññi waaye daal law ba lawaari ñoo xam ne seen yoon nekku ca ndax bañ ko yëgle ji ñii war fas ñii war bax la ñii war mbaam dañal gañ leen doon dañal di ko yëgle ji dëkk ak dëkk ñoom it ca lañ tooyee ba far wàcc ab liggéey ñu ne ginnaaw nit ñi bëreeguñ nañ seet xar te seet xar mu baax seet kooy moo xam ne mi tabaski lañ ko doon nége wala am tudd yoonam nit ku ci woon ci xeexum ñooña waaye seetaan moo ko law lawaale ko moo ko law tiqale ko ñu daal koy defar ba yàgg ñu gis nit ñi tàmbalee yow ñu ne ginnaaw lii ko daa mel ne ëpp na am xar xewu xar nañ def nañ seet nag ba xam nag itam ne woon ca wit nde wa ñu jëli ko daal di koy defar moom itam ba yàgg ñu ne lii de nag mënu ko gëlee ma ciy baax topp yow yi nga xam ne mooy juri kër yi rek kon musiba bopp loo ca gis rek gaaw moo tax ku jaar ci yoonu bi jëm ci ngërëmul yàlla ku ne mën na natt boppam su fekkee moom bis bu set ñuy gën di farlu ci jëfe ndigali suñu borom yi di gën di moytu tere suñu borom yi su boobaa mën naa rafet njort ci ne moom mi ngi ci yoon wi jëm ci am ngërëmul suñu borom waaye su fekkee dafa sax ci mbir téye ca moo xam ne saa bu koy def bëggut ku ko fekke bëggut ku ko nettali ci ba noppi nuur ca na xam ne mi ngi jaar ci yoon wa jëm ca merum suñu boroom te su wëññi ko wut la koy dal su ko daloo dalee ba noppi dana layoo moom diggante mag yàlla mi digle woon mu lànk waaye dana layoo it ak nit ñi nga xam ne moo leen teg fitna ja leen dal te seen yoon nekku ci woon kon boog saa su nekk war nañuy xool ba xam ñun ñu ngi jaar ci yoon wi jëm ci ngërëmul yàlla waaw wala déet yoon wu ca jëm yomb naa xam mooy loo xam ne boo koy def bëggoo ku bañoo ku ko fekk te bañoo ku ko fekk nettali ji ko loolu moom ku ca sax bis bu set mu di ci xëyee ko gont mën naa defal njort ci ne mi ngi jaar ci yoon wi jëm ci ngërëmul yàlla waaye su fekkee yoon li muy def moom moom kenn wala boog moom ñam ko siqal képp ñoo fa nekk te bëgguñu ku leen fa fekk bëgguñu ku ko yëg nettali ji ko nañ gaaw teggi seen tànk xam ne layoo yàlla mi ngi leen di yoot meram te su mer ma amee ba téqale ñi nga xam ne seen yoon nekku ci woon it ñaari layoo la ñuy layoo layoog yàlla layoog jaami yàlla yàlla noonu yàlla dafa dëgg ak topp topp te musal ñu ci lu ñuy awale ci yoon wuy tax ñu dajeeg merum suñu boroom te saa su nekk ñu mu jaarloo ñu ci yoon bi nga xam ne dañuy tasee ngërëmam ba faw yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin